déglul ma wax la la waral magal ga nga xam ni seex bàmbaareel demam ga tarix ba ama jey sa sin mooy at ma moo di leel ab sëriñ ba si yu mbég ma li waral magal gi bari na waaye danañ ci tudd yenn sukkandikoo ko ci waxi sëriñ Tuubaa waaye tamit sukkandikoo ko ci waxi doomi Sëriñ Tuubaa waaye tamit sukkandikoo ko ci mbindi nag yi Sëriñ Tuubaa yi boo demee ci gisa u sakkoon bu géej gi bu Sëriñ Musaa Ka da nga fekk mu naan yaa saa ili xan sababi taadimi yowma xuruji cheikhina alqadimi min daarihi tuddaha bi mbakke baari bi isni xaaliqil baraya baari خرجت يوم السبت ثامن هفر لخدمة المختار في سحر سفر خرجت يوم السبت ثامن عصر لخدمة المختار في سحر سفر نياري قريت مؤم نخ يساو شكر العطوف في جواب عبد اللطيف جو عرب بيغال دكو بند يسر خمغو خرجت يوم السبت رابع السفر لوخ génn naa bisub gaaw di ñeenti fan ci weeru safar waaye bi nga xam ne moom poème la da ngaa gis mu ne xaraju ma sabti saamina asar kalimatul muxtaari fi safar génn naa bisub gaaw di fan ak juróom ñett weeru safar mahal jamil safar al jalil jalili ma habibi habba hubbi lillahi habasa xalili حبي لله وللكتاب وللرسول قد ما عتابي لبام واي كرب كم يفكر يعرف na yàlla kenn la bu leen ko def ñaar kon xasida maxal jamilu safaro jël sëñ Moussa Ka nee na ci atum talsasin ci sëñ bi digle màggal gi la ko way te mooy yàlla mi aji rafet faral na ma safar yi nga xam ne da doon jëflante man ci jalaalam kon safar yi nga xam ne day jëflante man ci jamaalam moo ci des bisu màggal bii ñu bisu màggal bii ñu màggal mooy bis boobu bi mu fa jógee moo waxoon ne bu dikkatee nañ ko def ni tabaski waaye nañ ko màggal bu baax a baax a baax rek ndax bu fekkoon di bu fekkoon bis bu ma def la ni ma def dem ma dem kon sa sa ñi nga xam ne du du ngeen am du ngeen am du ngeen la la waral magal ga nga xam ni Seex Bàmbaareel demam ga tarix ba ama jey sa sin mooy at ma moo di leel ab ba si yu ma